asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi sen football tv ni na leen bu baax si leen di am mbégte sas ne dafa leen vidéo pour ñi xamantene xamante ne dañoo bés chaîne maa leen wax welcome bienvenue abonné len cliquer len si cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu doon ngeen mën ko si rendre len leen fàtte tamit vidéo bi c'est très important mbokk yi di ma accompagner bu baax ci découverte yi découverte yi pour yéen la pour ngeen partager que yeneen sénégalais mën ko gis que ça soit sen whatsapp sen statut whatsapp que ça soit facebook groupe yi ngeen bokk la démé non xam nga moy jàppale bu baax baax sen football tv donc c'est très important comme ça ma continue def ay recherche andi leen yeneen jeune talent yu xamantene ne war nañu mën a petite catégorie bi wala dooleel équipe nationale du Sénégal A donc mbokk yi te ñu ñëw wax si Bamba Dieng Bamba Dieng nak benn journaliste bu nekk euh, l'équipe bu ñuy wax Baptiste Sommier mo génne di wax sur le cas euh, Bamba Dieng Bamba Dieng cas moom sénégalais daanaka ñëpp xam nañu histoire bi xam nga donc euh, xam naa dañuy fàttali un peu rek par rapport un gars bu ñu ko def si intersaison bi

boole ko si ay plan am mu jógee si banc bi sax daan toog dama dama dama ba bokkutul si xam nga xam nga mu jógee ñu ñu nekk carrément presque soxleetuñu la dama changé club mu dem di changé club gis nga histoire bi yëpp xam xam nañ ci laa waroon dem Lille dem Lille si Lorient mu dem waa waa Nice ne xam nga kii xam nga voilà dafa am benn gaañu gaañu maintenant nag def na retour am ñëw na sax intégré euh, entraînement bi loolu moo tax sax journaliste bi nekk l'équipe foofu xamale na yombul woon si si si si si parce que li ko entraîneur bu wan bu doon kenn mën waxuma la craqué mais ma nga fa jaare gëdd carrément xam nga li ko dirigeant yi def war li ko def quoi nee na waa ji sax doon na jooy métti woon na quoi daal métti ko teg teg lu métti ni ni ñuy ak moom moo jekkul rafetul si benn anam waaye nee moom journaliste bay wax da l'équipe moo ñëw dem foofu def benn kiyam benn benn euh, pas document laa ko mën a wax mais dafa ñëwaat si histoire bi résumé ko ba pare si moom ay info yu xamante ne seet na foofu Marseille ak ñi doon gis Bamba Dieng yooyu nee na Bamba Dieng saa ay jooy sax def nag daanaka noonu la ko waxee mais bon man euh, Bamba Dieng man je trouve que am na un bon mental la première fois bi ñu ko defee ñi ko écarté lu mu def le lendemain deux jours après dafa jël caméra di saboté yaa naan kii de Bamba Dieng affaire bi moom voilà et récemment ni gisaat naa vidéo yi photo yooyu man sama xel dal na et même par rapport au temps de jeu je pense que

gëm bi muy il a les épaules pour ñëwaat ne Sénégalais yi fa lañ ko bëgg a gis janvier d'ailleurs fi. maintenant si commentaire man ngeen ma wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di di wax TV.